waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di ziar bu baax. delloo ziar waay. ay Cheikh mu ngeen fanaane. rafle rek alaaj. yow boobu laa mënul. <laughs> yow relax tey wala ma relax. rafle. tey sant bu baax. sant yàlla bu baax nag sant yàlla bu baax. alhamdulilah alhamdulilah ñaan sant yokk. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal mhm. aalamiin ñaan wut xëdd. Mhm. yàlla di am lu ñuy ndox. Mhm. ba desal. am na ñoo xam ne de ñàkkum gaz bi tax na dem euh, xëdduñu. amuñu duñu tàngale. amuñu duñu tàngale. gëdd gëdd xëdduñu ñu si bëri. mënoo jël lekk si frigidaire ñëw teg di lekk. parce que ñun ñoo dem ba tàmmal suñu bopp. dawlin ceeb. yooyu yëpp dafa manqué manqué yoo xam ne manqué secret la. xam da ngay laajte ñu naan lan am. nañ jënd secret bi bu amee rek man ñu ngi ci yoon bi. boole ci carburant. bàyyi leen ci xel. Hmm? carburant man naa ko fii. boole ci carburant. léegi bu manqué dem bi kon kon kon kay li sa kaw laal. a tembe toogal foofu. coucou à mon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. ñu koy nuyu bu baax ah, ñu koy nuyu. ñu koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yàlla yombal léppam. amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin waaw. moo initié émission bi kon. au de collecte. premier jour bi ñu xisee fekk mu jeexal ci kër gi. Mm-hmm. suñu xel mënut jëkk dem ci kenn ku dul moom. wallaahi dëgg la. Mm-hmm. waaw mënuñoo jëkk a ñaanal kenn ku dul moom. wallaahi dëgg la. waaw gën a firndeel suñu kóllëre ci kenn ku dul mm-hmm. moom. wallaahi dëgg la. coucou à toi mon frère. Mm-hmm. yal na la yàlla sàmm. allahumma amiin defal la li gën. gudd fan mucc ak muccale. mi dara ba allahumma amiin. ni nga yéwénee ci micro. Mm. baaxee ko say collègue yal na la ko yàlla taxaw. allahumma amiin ci barke Seydina Mouhamed alayhi salaam. sallallahu nekk na nag dañ ñu manqué de. waaye nag ça c'est ça c'est ça c'est dañuy nangu dogal rek. ndax au delà collègue collègue bi euh, xam nga de euh, mbiri moom rajo ak télé mën na leen boole waaye du leen taxaatle. Mhm. Euh, ndax la lay xew ci biir la. donc nekkatul affaire de FM. loolu mais affaire de famille lay nekk. man sama papa bi mu laaxoo ña fa sa la bokk. Mhm. donc mhm. man moom waxal moom mooy loolu. yéen a yàlla defal ko jàmm. amiin amiin amiin amiin amiin. ala jàmm nit ku baax la nit ku jullit. ku ku gore. ak a jullite. ku mën ni boo tooñee sax mu faram itam. su waxtu julli jotee lu mu jàppoon. te dinañ kenn ku la néewal doole. waxee jotee ñu xeex ba noppi soog lijjanti baax na yaakaar nañ ko. Muhammad yàlla na yàlla taxaw ko. xeex le la yàlla balaa na xam ni daal mën nañ tàqalikoo ci liggéey waaye duñ tàqalikoo ci xol. duñ tàqalikoo ci ruux. mukk mukk mukk. duñ tàqalikoo tamit ci bëgg ak soppante. mukk ci àdduna. te loolu mooy dund. nit ku baax la nit ku mën nitam la nit ku mën a xarel nitam la. Mhm. nit ku koo xam ne alalam du ko boole kenn. kenn kenn kenn kenn. yëwën ci liggéey bi amu ci benn. démb moom yëwën ci micro. ku la ko wax ak ku la ko waxul démb xol yëpp a xol yëpp a diis. Mm-hmm. Mm-hmm. xol yëpp a diis. xol diis xol yëpp a diis. na yàlla leeral yoonam. amiin yàlla ba leeral taxawu ko. kattanal ko dooleel ko. yokk ko nag. wallaay léegi toujours. yokk ko lool lool lool. lool nit ku baax jàmm ndam tawfeex sutura. amiin yaa rabbal kantan amiin yaa rabbal aalamiin incha allah. yàlla na fi yiw yàlla jublu. amiin amiin yaa rabbal man bu ñu fi ñëw mooma woo. amiin yaa rabbal aalamiin ma ñëw mooma dal. ndeysaan nag dooleel ma. wallaahi. wallaahi. booleeg nag dooleel ma trop ñun ñëpp moo ñu dalal. dooleel nu taxawal nu kàttanal nu yàlla ko yàlla kàttanal amiin wallaahi li mu lebal jaam yàlla yàlla na ko yàlla fay waaw wallaahi ñu ko fàtte de mukk ci àdduna mm. mukk mukk ci àdduna foo tollu xamal ni si ñun nga bokk eh, eh, li nga xam ne tu fais partie de nous insha allah wallaahi su ñun nga bokk yal na yàlla dooleel la gaz dëkk bi da amul gaz. Hmm. ñu dellu ci matt ak këriñ rek. Hmm, hmm. ak bi li bànneex. laaj ah. ci matt ak këriñ ak bi li bànneex. laaj si nga ni ma ne ñu dellu ci matt ak am na kër yoo xam ne dootuma am na am na nooy tabaxee sa kër yooyu euh, doo mën taal matt foofu. ah nga ci kaw terrasse yi. nga aj ko si kaw. Ah. këriñ moom moom moom dana yomb moom. <laughs> xam naa kër bu nekk am na furna. xam nga la mooy problème bi. ñun ci suñu dund dañoo dem ba. mooñaale ko mbir yoo xam ne dañ naan ñun war waruñu mën a tàqali ko moom. Mhm. te nit nag nit nag da ngay da ngay da ngay da ngay prévoir lépp. Mhm. da prévoir lépp. Mhm. dëgg la parce que bu boobu yow am na ñoo xam ne imaginel Sénégal bu ñu demee ba courant bu coupé ñëpp ni ñogg. bu courant tàkkee ñëpp tàcc wuy courant jaw na courant jaw na tàcc mu mel ni événement. <laughs> léegi léegi ba courant amul nan lañ doon dundee. xam nga ñi ñi ñi judd ci courant. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. ñooñu tey boo leen yóbbuwul ci lëndëm tey ni jaaxal. mais ñi nga xam ne judd euh, euh, euh, sama sama temps ñoom papa yi nga xam ne village mën nañ fa nekk. toog eh. duñ gis courant. Eh. waaye fi doon fii ba suba courant tàkkul seen sa. looy demee sa temps ñoom papa te gis ma sawet. wallaahi <laughs> man mii rek. <laughs> non non nga xam ni mënuñ yaa asa. Eh, yaa asa yaa wëñ nga jaay ko. wala pétrole waaw. mooy lampe pétrole. lampe yi ñu wax defal mèche. yaa mèche bi noonu di génn. Ah, waaw yow xanaa ah ah yow xanaa waxuma la nga dem jëndi ah. pétrole. timis eh. ah, léegi timis jot. waaw gàddu gagar gagar yi. <laughs> ah. wallaahi daw ñëw jëndi lamp jënd pétrole. dem jëndi pétrole. boo ñëwee ñun la xoyatal néeg. wallaahi dafa nga néeg bi. xoyat néeg bi def ay xal. néegu timis day am safara. Adi damay laajte. xam nga bëri naa ay mbokk yi nga xam ne jamono ji ñu ngi déglu te xamuñu loolu. Maxime ziar naa la jóobu looloo tax musiba dina dal. ah déet. man bàyyi lu bëri la lu musiba ko. wallaahi wallaahi. xoyit xoyit am na beneen baat. mag ñi ah eh, déet benn baat la luy def ko ci ab néeg. diggante diggante marax. wallaahi mm. timis néeg bi ndugg. diggante boobu dañ xam nga mag ñi ñoom dañoo amoon seen i xam-xami bopp. Mm-hmm. dañ naan am na loo xam ne day yendu ci kër gi. Mm-hmm. ci biir néeg bi. Mm-hmm. yow ginnaaw bi nga yeewoon ne ci say occupation. am na loolu fa wuut am na lu fay am na lu fa yendu mhm. léegi la fa yendu nag da ko war a xamal ne ko boroom kër gi dikk na wala boroom néeg bi dikk na ci néegam mhm. nga taal safara am na ci yoo xam ne maanaam loo xam ne ay ay rabak yooyu yëpp safara ñemewuñ safara mhm. boo ko taal ñoom ñu dañuy daw génn léegi bu ñu dawee génn nag su ah, boobaa nag yow ah? mooy dëkkandoo yenn yi waaye mooy loolu looluy xoyet mag ñi dañoo amoon ay kii daaw ñu daaw dox diggi njoloor ndax luy dox marax. Mm-hmm. ah mm-hmm. yooyu yëpp amatul léegi. nit ñi léegi ñooma a. Euh, euh, euh, jinne yee xarab yee yem. dëgg la bi coow naa mën ak Diop jeune nga fekk woo bi courant amul. yow man juddoo woon Dakar man bi may juddu kay Dakar am na courant ak ngeex wax ak mbuur ak dëkk yi mag yi. Mm-hmm. man man kër Sonko laa juddoo. man saa ndey dëkk bu tudd kër Mbaye Dièye la dëkk. Mm. juróom-ñetti kër a fa nekk. saa bàyyi dëkk bu tudd kër Sonko la dëkk. fukki kër ak benn fa nekkoon benn ba tuxu mu des fukki kër. léegi fi mu nekk nag am nañu courant am nañu ndox. Ah. am nañu lampe. Ah. courant ak ndox. Mhm. ay robinet. Mhm. waaw mais dañoo amoon tuukër am sàq. wallaahi dëgg la ah. sama sàqum baay ma tabax la woon. Mhm. ñu teg ca kaw ab jàkk. waaw di ca sembu dugub. bu nawet jotee ñu dindi jàkk ba bu nawet bi di jàkk ba. xaddaat ko. wallaahi dëgg woote woote xadd. ñu ak ko ci ko sàq ma ñu naan yëkkatu xëddeen dañuy yëgoo. wallaay ñu doon jënd pétrole. te balaa ngay defar am ah. xadd da ngay rabat. booy jënd pétrole yi demal demal àbb sa bàyyi torcham. daa daa taw ba noppi ndax ndox ndox suuf yi. wallaay. yenn saa yi gis benn jaan bu ne nga ni eh jaan waxoon naa la del jël tos. Ah. ñun dañoo juddoowul Ndakaaru. woote am rabat. rabat. wax li. <laughs> woote am. <laughs> woote am rabat. c'est que nag il faut ngeen expliquer aussi. parce que y a des yu nga xam ne. dafa am rabat am sàkket. dañuy def kirti kirtinding. bokkut ak kirtinding. bokkut ak kirtinding. kirtinding mooy clôture. sàkket mën nga ko defee tige de mil. mën nga ko defee tamit ak mbarax. Hmm. mbarax nag ñu nekk boori waalo ñoo koy. waaye yéenay def mbarax ñun xat la ñuy def ak solal. ak solal ak nduur. ak nduur dafay yéen daal di koy <laughs> yenn saa yi ñu sàkkete ko xànc xàncal nga gis. wala wala ñu sàkkite ko fil de fer. c'est que nag yéen booy taw nit ñi eh, leen mën de. man bokkoon naa ci leen mën. non mais mais sàkkiteur bokkoon naa ci ñu dàq sàkket. des nga gis ko sàkket ba pare nga sàkket ba pare. sama loxo dafa seetoon ci sàkket. Ah, alaaji ba pare dagg ci kaw tàpp ko. mu def def mu def benn tàpp. cheikh bokk naa ci ñu dàq sàkket suñu dëkk wallaahi eh. sama loxo dafa seetoon ci sàkket. waaw sàkket dem nañ ci mën. waaw dama dama mënoon sàkket ak ak rabat rabat buntu xaraa déggoo ñu. raboté nii boo xam ne ki tax lay nekk. ah pour man raboté nga yor yow nga nekk ci bopp bi. Mhm. ñi gën a jub loo xam ne ñooy féete ci bopp yi. laaj bu nekk am kenn ku fa nekk. boo dugalee boo dugalee non il faut def film espèce il faut ma jàngal. non loolu jàngal leen yoon. waaye xanaa déggoo euh, euh, euh, xeroo da koy daw. déggoo léegi xanaa déggoo léegi boo. da dugal nii génn nii def nii xëcc. nga xam ni laaj bi saxet bi nii ñaari buum ñoo koy laaj bu nekk ñaari buur lay nekk ñi. Ah, waaw lay. ñaari fil de fer. dëgg la mm. mooy loolu la ñuy defal buntu. bi ñuy tëjee néeg bi après bi ñu ko sàqatee ba noppi. ñu soo a defar ak ndësën. wallaay dëgg la ndësën ay bant la ñuy wut samp ko. Mm-hmm. ñun nag ñun nag sax xamoon xam nañu ndësën waaye. Mm-hmm. yàlla def na ñun bi ñuy judd sax nag suñu wayju moom dëkkuñu woon ci tëdduñu woon ci lalu ndësën moom. Mm-hmm. lalu diima moo xewoon boobu lalu diima. lalu diima weñ ñi waaw am grillage yi nooy. waaw Dakar Dakar dootul. waaw nga nga def ci Pajas. Mhm. Pajas bu toog Pajas moom ñëw naa ko ba tey. wallaay ndeysaan. waaw ñëw naa ko mais loolu nag mi ngi mi ngi wàññeeku de même dëkku kaw gi boo fa demee lu ci ëpp yooyu yëpp amatul. Pajas waaw waaw waaw dëkku kaw gi. ñoom ñëpp ba léegi mais bareetul. bareetul bareetul wàññeeku na bu baax nag. loolu yëpp lu si bareetul. dañuy ñëw Pajas ba noppi takk charette dem Mbobi. wallaay ut mboobu mu nooy sal guuf ak ndange. wallaay sal guuf. sol ci pajaas bi. wallaay dëgg bu ñu noppee ci pajaas bi soog koo def matelas muy ñëw àngali noonu. génn àngali ah. mu tooju. Ah, wallaay bënn ko ci digg bi. <laughs> dugal kay bënn bënn. élage bi la <laughs> <laughs> dëkk ba am fu mu nekk. wallaay dama bëgg kaw. et puis maanaam univers bi la univers bi nga nekk yëpp. univers bi nga nekk yëpp. Mhm. Euh, ci wurum bi ci ci wurum bi nga ko jële maanaam euh, univers bi ngay dund. waaw ok yow univers bi ngay dund. moom nga nekk nature nature bi nga soxla jéggaani woo dara jéggaani woo dara da ngay soxla rek jël dara yaa ngi ci biir nature bi da ngay ba ci ba ci ba ci mhm. ba ci laax bi ngay lekk ci nga ci nature bi lay jóge muy muy da dem tool ba rek guddi teg muy lekket baag mhm. euh, soo ma nga dem rat waaw sa sa gétt ga ci univers bi ngay dund dem araw waaw hmm? taal mat euh, ñun suñu yaay daal nañu xëy def kii. Euh, paanu paanu dugub. Mm-hmm. ci la ñuy def lépp. waaw ah. buñ ko bojjee. Mm-hmm. buñ ko bojjee. Mm-hmm. ci la ñuy génnee buñ ko bojjee ba ba ba ba soq ko. ci la ñuy génnee cox. cox bi ñuy bëggee fas yi. ci la ñuy def araw li ñuy toggee laax. waaw ndekki li man a nekk fonde. fonde ak ñoom seen. non non cere cere bi ñuy reeree. mën na cere bi mooy ndekki mooy reer bi. mooy ndekki itam. moom après moom la ñuy tàngal ci suba bi. moom la ñuy tàngalaat ci suba bi. guddi ubbeeku la rek. waaw ah, pour man kii ah, am na ñoo xam dañu hors d'œuvre la quoi. après plan de résistance bi daal di ñëw. bu ñu saan am cere joo xamante ni bi baase la. <laughs> wala baase mbuum mais ñoo ñoo ah. bu dul loolu ñee cere yend lay doon. cere yend waaw yend mooy la wax benn benn jën rek la ñuy sànni ci biir. Ah, benn njëkk tëraay benn soble njëkk ah, tëraay. benn njëkk tëraay na cay xam nga cereg siim nii nii ba fajar gi nii boo ko siimee rek mën nga ko lekk. neex cereg siim nii ba ba ba cere ji fudd. waaw benn paan dugub boobu noonu. boo ko tibbee ci sàq bi. Mm. ci ngay génnee li ngay togg araw. Eh. laax. Mm-hmm. wala wala wala wóor. wóor waa wóor. xam nga wóor. ah alaaji nag alaaji. alaaji man dama ne fu mu nekk maa maa maa sa ñëwaay fu mu nekk da ngeen di wax ni dañuy dañuy jéem a génn rek. léegi nag ca xitax ba ca xitax ba ci xitax ba la ñuy defar bili bànneex. bili bànneex mu taxani de. wallaay li bili bànneex. bili bànneex bërigo yii ngay jël. photo si wa peinture yii. waaw ngay jël dem ci xitax bi wut kuur gu sew. Euh. wala bi day sew. wallaay ndeysaan ku ci digg bi. di ko sol xitax di ko sol xitax fekk am na ci côté bi fu ñu bënn pour matt di fa jaar. Mhm. foofu da nga fay sol lu ko protéger mu laal kuur gi. nga mhm. koy sol di ko nooti ba mu ni kekk. ba mu dàmm boo noppee nga dindi bi ci suuf dindi mhm. ci suuf bu tàkkee. mais moo dàq gaz. dëgg ñaari matt mën nga cee togg. waaw ah. ci nga cee togg bagaan. ñaari matt rek mën nga cee bànneex. jul jul jul tàkk tàkk. mën nga cee bànneex bu neex ci biir ñuul du def dara. boo noppee yenn saa yi nag xitax yi jeex. bu ko defee nag pël yi màngoon ci suñu tool yi cooroon di waaj a ñëw. Hmm. ñu dem fore ay ndéef. lay ndéef ginnaaw fële nag. Hmm. moom la ñuy toggee ndéef. sol ko ci ay saako. wallaay ndéef bañ a taw te ñu dugal ko ci ci saxama. wallaay dëgg hmm. wallaay dëgg. Eh. xetax googu sax boo daan am ginaar nii moom ba mu nen fukki nen ak ñaar. waaw far faatu. mu faatu jàppal ñu lekk ko. waaw ci xetax boobu la ñu boofale nen. Ah, ah, xam nga boobu bàyyi sa ñam ko. ayii alaaji nag. alaaji saa alaaji man. xetax nii. maa ngi ci dugal ci xetax gi. xetaxu dugub. xetaxu dugub. 37 degré la. waaw. dañuy lii ñuy waxtaanee ba baax. yow lii da nga da nga dugg ci xata xata. élément bi bu bëgg a xeex. maa ngi mel ni kuy jàng de. da ngay am